salaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax seen mbokk seen xarit Aladji Malick TV ci information yu te wóor yi ngeen fi faral di taataane bés ne loolee nekk na mbégte ci ñun gars yi moyen bi nag maa ngi ci ziar Aladji Malick Sarr mi nga xam ne mooy yëkkati daanaka ay moyens yu bari dina jox dina wax di leen sol bu ko defee. moom suñu sponsor la ngeen jël ko ci 66 907 71 80 lu tax ma préciser loolu mooy ñu bari ci commentaire dañ may wax Aladji Malick Barça nga supporteru Real nga su ma salee bi mais du loolu mooy dañ koy jël ko publicitaire Malick Sarr yi comprendre leen loolu Barça ak Real supporter yi benn lañ mais nag man du ci supporteru benn club il faut ma préciser loolu mais ñu dugg dëgg nag ci xibaar yi ginnaaw bi ngeen abonné ba pare xam naa coppati ngeen ko ba pare yow ne ci kër gi laalal ma zem bi bu ko defee ñu ànd dem ba mos ah, ci information yu wér te wóor ñu commencé ko nag ak pint ñëwoon naa ci informaté naa nag andi leen ci ay leer waaye tey nag damay indi confirmation ci travail bu mucc ay bi nga xam ne def na ko ak ki nga xam ne moo nekk euh, kii di international français bii di Kylian Mbappé lu tax mu am solo sama gars ndax tey jii dafa nekk individuellement maanaam ñoom ñaar kese mu am liggéey bu mucc ayib bi mu commencé woon fan yii yëpp waaye liggéey boobee mel na ni yemb na tey Kylian Mbappé mi ngi ci forme 100 pour cent euh, pinte ngi ngeen gis ko euh, Benzema gi wala boog ki nga xam ne mooy Mbappé ndax pare na ci liggéey bi mu nekk liggéey boo xam bu am solo lu tax mooy Mbappé nag dañu amoon ay tuut ni ce que physique bi jaar na yoon. ndax Mbappé dafa perte ay daw yi mu daan daw te it maanaam dafa perte li nga xam ne mooy euh, fraîcheur ak euh, yàkkamte gi nga xam ne moo rawoon aw bëyu nawet moom Kylian Mbappé ndax fasu euh, regg ak pepp ci ni ma ko mën a waxee ci ko xam naa ni bari ci ni ñuy topp nag xam naa ne dégg nañ wolof bu baax a baax am na ñoo xam ne nag maanaam dañuy bëgg wolof fi di xóot pour ñu mën a comprendre li leen di information yi leen di jox kon ba tëjee ko foofu ci Kylian Mbappé kon gars yi mbir mi noonu ak li nga xam ne daanaka moo nekk kii euh, euh, di maanaam entraîneur Barcelone di Hansi Flick xam naa ne da ngeen naamoon muy wut ci équipe Real Madrid moom Hansi Flick ndax war naa mën a yem place mais or ko demewul noonu journaliste yi ñoo ko sonal waaye taskatu xibaar yi ba duggee moom ci Vinicius Junior ak Ballon d'Or moom mii di gonek Barcelone bi di entraîneur bi nag li mu ci yebbi ci kàddu noonu la ndax Vinicius Junior mérito na Ballon d'Or question bi mooy loolu Hansi Flick daal di leen xamal ni Vinicius Junior mérité na Ballon d'Or ak méritéwul Ballon d'Or loolu sama ñebbe néew ci ndax maanaam du moom moo koy décider te it du moom mooy ki nga xam ni mooy tànn kii di Vinicius Junior te fan koy tànne ak liggéey boobee nga xam ni ñi nga xam ne ñooy gone UEFA yi danañ ko def di France football ak ñu xam ni ñoom la àndal loolee ban koy def fekkewu ko kon yaakaar naa ne boo ko neexee mën naa boole pacte ak organiser di kàddu yi nga xam ne yebbi na ko ak ci ballon d'or bi ñu ko doon sarxoole di ko ko laaj ci li nga xam ni mooy Vinicius Junior kon na leer naa ñi loolee kàddu yi ak ki di Ansu Flick di entraîneur Barcelone bu ko kenn yokkal bu ko kenn wàññi bu duggee ci Barcelone damay dem ci équipe nationale Sénégal gars yi équipe nationale Sénégal nag bu ko fa duggee damay dugg nag tuuti nag gars yi bees yi nga xam ni am nañ ci équipe bi nga xam ne daanaka mooy bu Sénégal gaa yi bees yi nag mën nañ cee jàpp waa Jaraaf am na ci ñaari footballkat footballkat yooyu xarañ la mais nag damay dem. gars yi ci sama waa ji ñan ci international Sadio Mané pour mu mën a libéré wu maanaam dëgg-dëgg di mën a jël bal yi di ko dugal loolu nag il faut il faut il faut euh, ki nga xam ni moo nekk Papa Thiaw digg militaire bi mu baax bu baax a baax digg militaire bi nag lu tax. ma sàkku mu baax mooy Pape Thiaw digg milieu bi soo roofee ki nga xam ne mooy Nampalys Mendy ah, ci digg bi charnière centrale mu jigee défense bi ah, ci kanam tuuti nga laal benn Papa ci côté càmmoñ bi ci milieu bi bu ko defee fraîcheur ak waaxu yi nga xam ni moom la kii di Sadio Mané soxla mu koy jox boo paree ci Papa Gueye laal ma Lamine Camara ci beneen côté bi muy ñetti milieu yoo xam ni 4-3-3 Pape ngay laal bëgguma la classé loolu nag mais ah, bu ko defee ne Sadio Mané day nekk en l'aise Lamine Camara déggoo naa moom da ay bal dem ak kii di Papa Gueye déggoo naa moom da koy rofal ay bay mu dem te et puis maanaam Iliman Ndiaye peut être mu bokk peut être mu mënte bokk mais bu dee Ismaïla Sarr soo ko dee jox ay longue passe dana mën a ànd ak bal yi di taw di wëri di réguler situation yi loolu dana nekk loo xam ne lu baax la ci équipe bi point mën a coow di fa la nekk diggante Nicolas Jackson ak ki nga xam ne moo nekk Boulaye foofu amu fi choix mais ci commentaire yi lay sàkku képp kuy seetaan vidéo bi ba pap euh, ki nga xam ne mooy Boulaye Dia wala kii di maanaam Nicolas Jackson Jackson koo ci soxla bu ma jógee foofu damay dem ci équipe bu France xam naa ne fa laa jeexle ndax ki nga xam ne mooy cubutooy ci waa ni xam ngeen ko international France la Aladji Malick TV démb andi woon na information di leen xamal ni moom moom mee kat ginnaaw ñàkk a ñëw xaritam Kylian Mbappé international français bi nga xam ne ma nga soqe ko ca Cameroun daw làq la ah, man tuddee ko euh, mais comme tey moom lañ jox li nga xam ne mooy capitaine bi mais nag daa ñëw ko wane ni information bu wér la information boobee bu dëgg la moom mii di euh, ci bu tooy di football faral ci Real Madrid mooy capitaine bu remplacé euh, di kii di Kylian yi gërëm naa leen sant leen ci li nga xam ne mooy information yu wér yi ngeen fi taataane di leen bàyyi nga xam tamit match Sénégal bi gars yi ànd leen ak seen équipe ngeen dem supporter ji ma may waa euh, lii di Dakar dem dëkk publicité ndax ñoom dajale nañ lépp lu ñu amoon ci ay bis pour fexe bis yi mën a jóge Ndakaaru Euh, Saddam Lo fële nga xam ne moo nekk arena ba bu ko defee maanaam képp koo xam ne dem nga Dakar euh, jóge nga Dakar dugg ci Dakar dem bi kii dem soo ñëwaat ñu andiwaat la loolu dana am solo mais dama déggul raison yi te xam naa dana gën suwaat information boobu bu fekkente ne raison yi am na ñu mayaat leen ko en tant que bu ko defee patriote nag mooy ku bëgg réewam il faut préciser ndax xam naa ne gars yi dañ naan jàpp ni patriote mooy ku ànd kii non patriote mooy ba maître Abdoulaye Wade la 11 bu soobee yàlla dinaa ko indiwaat fii bu ko defee ngeen mën a nekk ci stade bi en l'aise jërë ngeen jëf